la jaajëfal waa tey gis nañ bis nii nga war a la ma waral bis bi. waaw mais Assane ñu ngi lay fay di la siyaar di la bëggee bis boo gisee li ko waral a ah, mooy artistes yi fecckat yi ak théâtre a yi ak tamit jantal ñu doon waa njegen njegen yi njegen ma as Sapate Demba Yoro jóge Kees ñii Dakar jóge ci région yëpp ñëw fekk ñu jam ñaajo pour lan ñu kaf ko ree gën a suqali tamit aar tamit gën a suurewu ñun ak moom loolu moo ko waral. mais Seydou tey ñu gis fi lu doy waar comme li nga ko waxee gis nañ façon artiste yu bëri yii nii xam nga ne initiative bi yombul yow naka nga def bàyyi ba tëral li wala am nga ne ku la si waa ñii samay doomu ndey lan soo xoolee ñii ñoom seen nekk senegal sax bariwul ku ci mel ni Omar Baas moom xam nga li mu nekk bitim réew moo ëpp di liggéey tamit ay ñoo xamante ne nii tamit ah ñu mucc ayib. ñoom it ñu doon mara yoo xamante ne nii muy coupe d'Afrique coupe du monde dañ ciy soxla di leen yóbbu seen niveau dépassé nañ suñu waaye boo gisee loolu da fekk na ñoom it ñu doon suñu soppe ñu sopp ñun li ñuy def ba pare nag bëggal lënkoo ak ñun def ak ñun benn affaire boo xamante ne ni tamit dina ampleur ci biir jam ñaa tey noo gisee bis bi Seydou lii li mu def tey loo yow noo ko gisee waaw bis bi tam defa lu dul neex tamit sedd xool tamit li lépp Seydou la ak waa leer di jam ñaaja xale jigéen ñi ñam añ waaw li moom neex na joxoo tey yi des na yeneen programme yoo xamante ne mi ngi ñëw ci kanam daal Seydou daal ci kaw ci kanam yàlla na ko yàlla noo gisee journée tey bi maa ngi leen di fay maa ngi leen di naa leen yéen ñëpp euh, tey journée macha allah ñu ngi kaf ñu ngi foo ñu ngi ree euh, comédiens yi tamit ñu ngi ñu ngi def li ñu mën dëgg yàlla tey moom nekk nañu yendu nañu yendu bu neex macha allah euh, par rapport nag fan yëpp gëjoon nañ gisante tamit mais tey bu ñu gisantee na mel na ni gisee nañu bu yàgg yàgg neex na trop sax. waaw waa initiative bi ni ngeen def yéen danseurs yi comédiens yi ak artistes yi woykat yeeg yooyu noonu initiative bi pour lan la woon. waaw pour euh, pour ñu gën a xamante tamit parce que tamit yàgg nañu xamante mais am na ñoo xam ne tamit xamante ñu seen biir loolu moo tax pour ñu gën a xamante gën a miinante bëgg tamit defaat yeneen projet yoo xam ne mu ngi ci ñu kanam duñu xaar loolu lañ loolu lañ loolu lañ loolu lañ ci jublu te Seydou Mbaye tamit nekk na ku baax koo xam ne lii yëpp moom moo moo moo moo ko sulli daal waaw bëgg xamante bi gën a yaatu ñu ñu ñu nekk ñu nekk ay ay ay xarit waaw. ñu daal di ànd ak euh, Grand Mbacké mi nga xam ne moom moo nekk président ADD Grand Mbacké maa ngi lay fay maa ngi lay fay di de ñëpp di fay euh, kullu jam ñaajo di leen jox seen wàcc seen yéeguwaay di leen naan dal leen jàmm. waaw Grand Mbacké tey ñu gis si initiative bi nga xamante dañu fee gis artistes yi ñoom ñu daal di booloo danseurs yeeg woykat yeeg feccikat yeeg théâtre ñu gis la loolu nga ñëw teewee loolu lu wundu waaw waaw waaw bi moom teewaayu ADD parce que donc dañoo nekk ci liggéey boo xamante ne mënuñu koo séddoo buñ bokkee luñ mënu séddoo nag chaque jour kenn ku nekk na ci jël nga moom rek maanaam ñun bu xasee ba engagé wu engagé wu nañ buñ bokkulee bokkuñu mais buñ xasee ba engagé engagé wu nañ yàlla def tey ñi ma ànd ak yéen ñu bokkul benn liggéey boo xamante ne ñu ngi soudé wu depuis démb ba léegi kon ça veut dire que mooy bànqaas bi nga taxaw toog bu ko di que boo ko goree buy dem la fa bàyyi ba tax na lépp lu ñu waxtaane lu nekk dañ koy dënk di ko mbir mi nekk na loo ne du ñaari nit du ñetti nit du ñetti jigéen du ñeenti jigéen du ñeenti góor mbir mi dafa war a mën a yaatu te boobu dox di ci wax kon saa saa nekk rek kenn ku nekk nañ la delloo sa def na ni jëm ñaajo lañ dëkk jëm ñaajo moo ñu ñor développement jëm ñaajo moo ñu ñor fu ñu xamee ba bu nekk yor sa benn kay di bind di dugal ay vocal yomb na mais mën a communiquer ak doomu aadama yi moo jafe te kenn ku nekk maanaam xam nga fi nga mënee sa may lool nañ may nañu tamit ñu mën a wax nit ñi jox ñu cër cër boo xamante ne tey jii luñ bëgg a lu nekk mooy loolu noonu ñun dañoo am vision te vision dafa sori nekkul lu jege quoi ba tax na tey jii dañuy waxtaan di dóorandoo quoi loolu mooy dëgg. ñu ngi leen sant. di ko puisque amoo jot mais def nga le tout waaw ñoo sant yàlla baax comme ni nga ko waxee rek ñun benn association la ñun gentleman laay nekk senegal yi football ci football ñuy liggéey ci football Sénégal dañu def nag chaque fois dañu dem ñu euh, daje di football ay mas suñu biir comprendre ren yàlla def mu tombeek ñu wooñu waa jam ñaajo mooy ngéwal gi pour ñu ñëw football a ñoom ñu ànd seeg suñu xarit Omar Baas loolu rek moom moo ko waraloon ñu déplacé wu ñëw pour fubal ak ñoom quoi. waaw waaw gis nañ loolu ngeen déplacé wu pour ñëw fubal si mais est ce que day yem ci fubal ngeen ñëw déplacé fubal kese wala am na lu waral lii. waaw lii yëpp amitié moom moo ko jiitu ndax Omar Baas la nekk ñoom ëpp nga ay xaritu Omar Baas lañ te Omar si ñun la kon bu ñu wooyee pour ñu ñëw fubal ak ñoom kon c'est normal ñu bàyyi suñu yitte ñëwal leen loolu rek moom moo ko waral quoi. mais ñun moom benn lañ quoi ñun ñii ngay gis fii ñooy liggéey ci football gars yëpp xam nañ ñu Sénégal mais yëpp dañuy wane na ñun ñëpp benn lañ comme ni ñu solee maa mu doon benn quoi vraiment. dama bëggoon a jox Babacar Sylla mu sànni ay kàddoom tuuti ndax mat fair play lañ doon def yàlla di dem yàlla dimbali ñu ah ñu jot ñoo xaw a duma tuuti waaye bariwul retour dina am xëy na ñu fayu. ayca dañuy dañuy daal di profité rek daal nuyu. daal di nuyu ñëpp di jéggalu ñëpp di baalu ñëpp ak di ñaan yàlla suñu borom mu baal ñu ak di yéen mën dem barki alxuraan di beneen bi ci topp mooy ah di gërëm Seydou Mbaye bu baax a baax a baax beneen bi ci topp di gërëm tamit Omar Bass ñu ngi indi ñëpp Seydou Mbaye nag moom moo ñu xamal ni maanaam jaajëf boo gis koo ko jëfa ko moom kon moom ñu koy ñaanal di ñaan yàlla suñu borom mu gën ko taxaw barki alxuraan di karim kon waxal sànn say gàtt rek mu gën a neex defet bi nam ay wax mooy marché bi neex na trop waaye sama lii laa tax saay xamu ko mu dugal ah marché bi mu jantal maaraay dañoo dugal ñu la tey ba noo gisee initiative bi ak la moo ko waral waaw ñu ngi lay nuyu asna di kontaan seen taxawaay avant tout di kontaan si tv3 aussi ci teewaay bi teew fii ñu ngay rafetlu avant tout di ñaan yàlla mu jëm kanam waaw li ñu indi fii nag du leen lu dul euh, suqali aar jam ñaajo laay wax parce que booy xool culture amul lim bëgg jam ñaajo culture fi mu ne jam ñaajo àggu fa boo xoolee Dakar jam fi ñi nga xam ne fi nekk di dara ci culture bi teguñu ñu tànk bëgg nañ na gars yi teg ñu tànk parce ñu am personnalité bi indi ñu am kon ñun bu leen woowee ñu ñëw rek kon am na loo xam ne dox na suñu diggante ak ñoom kon nag ñun waa Jami rajo yi autorité yi ak ñi yor culture bi nañ bàyyi xel aar bi bu baax a baax lii nag commencement la maanaam dooy dootu ndox bépp yooyu di wat moo nekk nii li si gën moo gën a rëy fuuf ku teel a ñëw la jàppale ñu yaa ñu moom waaye koo xamante ne da ngay ba mu baax nga soog a ñëw bu ko bokk ñoo ànduñoo kooku suñu wax du neex